moo waral suñ baagwee yu rëy yii foog ñu dem baagwee wax naa ko keroog ma ne foog ñu seet suñ salaire yi seet suñ pension yii ndax suñ waxee ñu ne tuutaam président dafa war a def tuutaam wàcc te opposition bi sax amuñ tuutaam te tuutaam kay ñëpp ko war a am yow soo élifee kuréel fukki at manoo cee am bunt wàccal keneen try moo xam opposition nga moo xam nguur nga waaye lu tax ñu ragal tuutaam bi ndax balekat bi nekk sa ofis jamono ba mu fa nekkee di bale di feyeeku nga koy fey weer munta teewal yéwénal añ ak reeram munu ko waa kooku su fu mu jëm mu ruux siiru obligé ba nekk ca kalaas ba di jàngale suba bëccëg ngoon mu ngi ci boole di jël studies bu weer dee balaa bale dee desewtu dara ndax pay bi baaxul pay bee bon mu xalaat pour pension amul ci néeg bu mu fanaan kooku dina bugg a tuutaam koo buuta wàcca di buuta pension moo tax ñu bari teachers yu bari surtout suma mbokki ustaas yi dañoo wàññi seen at yi yaay gis oustaz boo xam ne wóor na la am na juróom-ñett fukki at mooy la xay man amaguma fotti sax kon solitaay ruux siiru kon war nañoo seetaan loolu te loolu moo waral tam musiba bi ñoo daj ci bagwe bi yow nga juddu sa yaay triakuloog lay jóg ëmb ay njaayam daw ci moto uti njaay yóbbu ca marché ba jaay su jaayee ba boori wan muy ñëw dugga soog a ñëw togg añ nga yaroo ci loolu di gis sa yaay di sonn di gis sa yaay ci faro yi di gis sa yaay ci tool yi di gis sa yaay ci póot gi di gis sa yaay ci paase gi nga yàkkamti pour mag mun cee jëlee sa yaay waaye jàngoo amoo xam-xam amoo métier waaye cofeli yaay baa ngi ci xol bi lan ngay xalaat ndax gëmloo nañ la boo demee bitim réew di nga am liggéey di nga am place bu ko defee yërëm bi nga yërëm seen ndax chemistry bi nekk diggante doom ak yaay nekkul diggante doom ak baayam nga defee nga ne dunda walla dee waaye foog ma dem nga dugg ci géej gi dee te géej gi amul xarit de géej gi amul waliyu te moo tane désert bi moo tane désert bi moo tax fan yi fi ma nekk dama sonn sax ñu ci miti yu métti ñoo ECOWAS sa eu man dama leen ne dinaa leen ko nettal ndax am na solo may leen dañ war a tas EU amul njëriñ war a tas ECOWAS amul njëriñ juróom-ñaari réewi arabang fa wutee naa international yi may la xanaa gisu leen ni ñoo reyee suñ doom yi ci desat bi suñ baag wi booy si xanaa gisu leen liñ leen a téye téye nit ca Libya di ko dóor tàngal weñ di ko teg indi téléphone bi di booram muy jooy nga ne ko waxal ak sa yaay bi nekk ca Gambie wala Sénégal na la yónnee thousand dollars wala doo ñu rey la yii lañ dee def yii lañ dee def may leen te yéen ko dee def yéen ngi nii toog yéen ñëpp ay jullit ngeen yéen ñu jàngal lislaam may leen man xam naa leen Tunis dañ jël Bagwe boy si yóbbu leen ba ci désert booda ak Algérie ki Algéria ak Niger simmi leen bañ set nangu seen dàll yi ne leen nañ dem ci biir désert bi xalaku ci ñëpp fa dee loolu is on recorded te mu ngi am mu ngi am Libye dañ fa am ay camp yu rëy di leen fa tëj ku bugg a lebrees nga ñëw jël ku bugga a liggéey nga ñëw jël soo paree kele fey fey la Libyen bi di ko lay mu ne ñoom fi ñu nekk nii dañ nekk ci déstabilité ku mag amuñ luwaa ma koy defu leen ko seen doom yi may leen nañ tas mbootaay bi ngir yàlla ñu seet li ñoo def ndax duñ mun a bokk mbootaay bokka lem ne benn lañ ngay rey suma nit nii te crime biñ commit yëpp mooy dañoo romba pour dem ñoom ñëwuñ sa si yéen dañ bëgg a romba dem waaye li gën a bari ci ñi muy dal waxuma ñëpp de waaye li gën a bari ci ñi mu dal ñi muy dal mooy doom yi nanguwut kilifteef doom yi déggalul seen ndey ak seen baay nga yaru ci kër gi ba suba si nga xëy rek umba sa umba nga ne yaa ngay dem baag wee yaay yëgut baay yëgut amoo kilifa amoo métier jànguloo boo demee nag leneen la am na ci yaay yoo xam ne ngir bugge ñooy teggi seen susu jaay seen or fayal seen doom xam nañ loolu yépp mbokk yi ndaw na jàng mag na liggéey màgget na jaamu yàlla dooral ñatta yi ca ndaw soo magee doo ko rëccu yal nañu yàlla déggaloo wax ji